yàlla mi ñu ci yee ku la war a egsi ma ëllëg ci àllaaxira wax la nag point yi mu lay laaj kooka bëgg na nga at mi yàlla nee na bëgguma ngeen yàqule feek yéen a ngi topp seytaane ci lim leen i woo mënu leen a mucc ci yàqule ci àdduna mënu leen a mucc ci yàqule ci àllaaxira ña leen jiitu woon ñépp yàqule ki leen yàqaloon mooy seytaane te keroog ba ma bindee seen maam aadama laa ko samp ne ko kii mooy sa première noon inna hada aduwun laka wa li zawjika na yuxrijannakuma min al jannati fa tashqa su ko defee kon nag ma ngeen bàyyi xel ci seytaane moom nag ngànnaayam benn la mooy regg bu la ko roofee rek gañe la loolu lay aaya yi di bëgg a wax si nii moo tax mu ne àllam ëhët ndax digaluma ilaykum jëm ci yéen doomu aadama yi ilaykum jëm ci yéen yaa bani aadama yi yéen doomu aadama yi ndax digaluma leen woon ne allah taabudu bu leen topp seytaane seytaane innahu naka moom aduwun noon la mu biinun bay aji biral ak nooneel lakkum ñeexal leen wa an ubuduni wéetal leen ma wéetal leen ma ci ak topp haada lii de siraatun mooy yoon mustaqim wu koc moom seytaane wala qad adalla sànk na minkum ci yéen jibilan ay mindeef kasiran ñu bari afalam takoonoo ndax nekku leen taaqilu na di way xelu ndax ngeen bañ a bokk ca ñam sànk su ngeen sàgganee ba mu sànk leen nag bu ëllëgee su ngeen ñëwee ci man li ma leen di fayee lii la mooy haadihi lii jahannamu mooy safara allati ba nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tuwa tuwa doona di dëxaleef leen ko islawha ña ngeen ca njaar mooy dugg leen ci al ma tey bi ma kuntum muy sababu li ngeen nekkoon takk furu na di ko weddi saytaane ngoog yàlla nee na suñ bëggee am not yu baax ëllëg àllaaxira nañ fi bàyyi saytaane te dem topp ko moom kenn jaamu ko wéetal ko manal nañu lépp saytaane mii buñ ko toppee dañuy yàqal te duñu jariñ dara ku gore hadi la ña ko toppoon ñëpp buñ demee ba àllaaxira mu def déclaration ne leen nag yàlla dëhaloon na leen dëgg ngeen bàyyi ko fa ma dëhal leen ay caaxaan ngeen topp ma kon nag tey moom bisam naxoo mbaay la mënulu ma leen dara mënul leen ma dara ñun ñëpp ci mbugalam yàlla mi inna allaha waadakum waada alxaq wa waadtukum fa axlaftukum fama kaan li aleykum min sultaanin illa an daawtukum fastajibtum lii fala talumu nii wa luumu anfusakum su ko defee nag loolu lay wax ba aayaat ya jeex kon nag ki lay wax loolu ëllëg na nga teel a yeewu ci moom bala ngeen a yegg foofa seytaane moomu nag euh, benn ngànnaay la am bu la ko roofee rek gañe la feeg roofagul la ko mën lu la dara mooy regg boo xasee regg rek seytaane lu mu bëgg a def ci yow mën na ko caa def waaye feeg yaa ngi taqoo xëyif ak mar su boobaa moom day mel ni ku ñu tënk ci sa kanam booy booy xeex ak sa noon bi nag tënk ko kooku day neex a gañe moom ngay déggee xadiisu yonent bi di wax ne sallallahu alayhi wa sallam weeru koor bu jotee dañuy jéng saytaane loola bokk na ca maanaaya fi muy mën a jaar ba am kartan ci yow man laa gañe day fekk nga màndi wala nga regg su fekkee nag fekk na nga xiif fekk nga mar bunt yim doon jaaree ci yow tëju na su boobaa nag day ñàkk kartan ba mel ni ku ñu ku ñu yeew dootu la mënal dara kon nag ku bëgg a gañe seytaane na nga bari looy xiif ab jullit dëgg-dëgg warul regg yonentu bi nee na bool yi ñuy feesal boo xam ne bool boo xam ne bu feesee di musiba rek mooy boolu biir maa mala ab nu aadama wia an charran min batnihi mu ne biir yi bool yi doomu aadamay feesal bu ci gën a yées boolu biir amul bu feesee rek di musiba luqmaanul hakim dafa daan wax ne bu biir feesee rek xam-xam xam-xam nelaw ida mala ida mala atil maiddatu su boobaa maanaam naamatil xikmatu wa qaadatil aadaawu anil ibadati su boobaa ciir yëpp tamit tayal dootuñ nangoo toppati yàlla moo tax ku bëgg a gañe sa bakkan bëgg gañe saytaane na nga taqoo xiif ndax ku taqoo xiif sa nelaw sa say nelaw néew ku bari looy regg bëri looy nelaw te ku sa nelaw bari sa regg bëri saytaane gañe la sa bakkan gañe la moo waral kon bakkan moomu suñ ko bëggee gañe nañ ko delloo ci xiif ndax bi yàlla bindee bakkan ak xel dafa laajoon xel ne ko yow man maay kan xel ne ko yow yaay yàlla mu màgg mi ñu war a jaamu man maay sa jaam bu torox bi la war a topp mu laaj bakkan lim laaj xel bakkan ne ko yow yaay yow man maay man yàlla ne mbugal leen ko ñi mbugal mbugal ma yàgg lool yàlla génneewaat ko laajaat ko mu ne ko yow yaay yow man maay man bu muy ñetti yoon nag ci ci la yàlla ne dugal leen ko ci mbugalam xuuru xiif ñetti fan rek la fa am yàlla génne ko ne ko waaw yow bakkan man maay kan ak yow yaay kan mu ne ko yaay buur bu màgg bu tedd bi ñu war a jaamu man maay sa jaam su xeebu su ñàkk solo si la war a jaamu moo tax kon bakkan li ko mën a regle rek mooy xiif ndax loolu moo doon cosaanam waaye regg moom ak régler mënuñoo moo tax tey gaa yi doon cëpp cëpp yëpp bi koor gi ñëwee ñëpp dal nañ ñëpp dellu nañ ci seen sago su ko defee kon nag saytaane bu ñu bañee mu gañe ñu bu ñu regg yonent bi nee na boo mënul ñàkk na nga def sa biir bi ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi nga def ko ñam bu ñaareel bi nga def ndox bu ñetteel bi nga noyyi ko waaye soo bëggee jël lépp nag def ko ñam ne ndox moom woyof na fu mu placé yomb na nokki moom moo gën a yombati nga am problème dana la jural wéradi feebar yu bëri tabaarakallaahu ñu ngi koy jëlee ci li ñuy lekk ak niñ koy lekkee waaye ku xam ne li ñuy li ngay lekk tabaarakallaahu lu ne lañ ca def lekk yoo xam ne dañ koo mëbale ba mu mel ni saal nga nga jël ci sa bakkan topp ci sa bakkan lekk ci noo ci warta lekkee feebar da lay yomb bari na ku feebar ci at mi mën naa am feebar bi mi ngi ko duggee ca tabaski ga wala ca reeru tam xarit ga su ko defee topp ko rek nag du ko gaaw a bàyyi waaye koo xam ne da ngay contrôler li ngay lekk bala ngaa lekk fekk xiif nga te bala ngaa regg fekk jug nga danga nga mucc ci feebar yu bari moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam buur ba leen nekk Égypte di mu xaw xiis bi ko yonantu bi bindee leetar di ko woo ci diine bokkoon na ci kado yim yónnee yonantu bi ñaari jaam ñoo xam ne ay jéebéer lañ mu jël kenn ka def ko soxna mooy maariyatu xibti kenn ka mu may ko xasaan ibnu saabit ma ko daan way may na ko ay xayma ak ay bergen ak ay baxla ba mayaale ko médecin yonentu bi jël may yëpp delloo ko médecin bi ne ko ñun duñ feebar soxlawuñ médecin ndax bala ñoo lekk fekk xiif nañ lool waaye tamit balaa ñoo suur fekk bàyyi nañ lekk ga kon nit dafa war a contrôler li muy lekk waaye contrôler boppam ci ni mu koy lekkee waaye bu yooyu bu yooyu amul rek seytaane gañe la su ko defee tamit ak wére di ñëw ci yow nga am problème aaya ji tegu ci yàlla mi bind nit rek moo ko xam muy al yawma naxtimu ala afwaahihim bu yowmal qiyaamee yàlla dafay jël cër yi ñiy seede jëf yañ jëfoon ca moom mu kaste làmmeñ yi ndax làmmeñ dafa mën a wax lu duwul dëgg ci bari tey ci seen làmmeñ yi boo leen ci bàyyee ñiy wax fii ba dem àllaaxira nga wax loo leen su fekkoon ne foofa am nañ kuñ fa mën a yey danañ fa mën a yey moo tax bu leen yàlla bëggee dugal safara ñu ne ko yow yàlla ñun baaxoon nañ gëmoon nañu yenoon yi daan nañ julli seen làmmeñ wax loolu te fekk day kàcci yàlla kaste làmmeñ wa nag su ko defee intro sa cër yi nag cër yi commencé di wax waaye cër yi dafa ne loxo mooy wax euh, ta maanaam tànk ya seede mun wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ñu ne lan moo tax waxut ne loxo yi day wax cër yi di wax maanaam loxo yi day wax tànk yi di wax mais dafa ne loxo yooy wax euh, tànk yi seede ko loolu sax ñun xam nañ ko ñu bëree bëri dund nañ ko gis ko tax yeggaguñ àllaaxira tey yow mii demagoo àllaaxira mais sa loxo yaa ngi wax lu bëri aéroport boo wàkki ci aéroport international yi buñ la tegloo sa baaraam ci benn machine nga teg ko ci sa baaraam boobu mooy wax ban année nga juddu moo lay wax mooy wax kan mooy sa papa dana leen wax kan mooy sa yaay dana leen wax ñaata at nga am dana leen wax ñaata yoon nga ñëw ci réew mi ndax yow lan lan moo la génnee woon ci réew mi ba tax nga bëgg a duggaat yëpp sa baaraam bi moo ko wax te ñoom ñi ngi taxaw rek jàkkaarloo machine yi kon watu ka wa tukallimunaa aydihim heggaguñu àllaaxira mais yàlla ñu koy wan fii wa tashhadu arjuluhum heggaguñu àllaaxira yàlla wan nañu ko bari na koo xam ne njuuj njaaj bi mu def ak luubal gi mu def wala sàcc gi mu def ki ko ki ko ki ki ko feeñal ki ko seede sàcc ga mooy tànk ya bari na ku sàcc nag jël ay tànkam dugg ci gétt nagu jàmbur yewi ay nag départ gars yi topp tànk nag yaag topp tànk sàcc ba ba ne fii la fii la fii kon sa tànk yi wa tashhadu arjuluhum bëri na ko dugg ci place tamit sàcc benn sa tànk yi nga doon doxee lañu la jàppee muy sa seede wala tànki oto bi nga waroon wala welo bi wala sareet bi kon yàlla bu ne seen loxo yi danañ wax seen tànk yi seede ko loolu gis nañ ko fii ci àdduna taxe guñ àllaaxira waaye nag bu ko waxee fii tamit ñaari cër yi gën a am solo la tudd ci cëri doomu aadama mu duggalaale yeneen cër yi mooy cërëb loxo ak tànk mooy loo xam ne ku ko manqué danga nga yëg ne manqué nga lu am solo su ko defee nag waaye namm na ca cër yëpp bu yowmal xiyaamee làmmeñ rek mi nga xam ne kat kat la moom la yàlla di kaste su ko defee nag doomu aadama da nga koy jàppee ne euh, siid la siid bi nag dafa bëri ay kër fenn fu ne ak lu fa nekk lañ fa denc su ko defee nag yàlla bu ñëw day introsé siitu gémmañ mbooleem làmmeñ lu mu mos a wax lu duhul dëgg mu wax ko la mu a wax ci lu dëgg tamit ñu bind ko mu nekk not ñu ne yow sa siid bii kat sa làmmeñ am nga ci not 90 pour cent mu doora nag introsé maanaam tànk tànk bi seet lim mos a def ki loo xam ne yàlla digalul ko ko ak lim ci mos a def ñi seet not ya ci am ñi ñi ñi noté ko su ko defee nag léegi loxo door a ñëw bët door a ñëw biir door a ñëw xam naa am na ki ñoo xam ne nag bu ñu duggee ci seen siitu làmmeñ ak seen siitu awra ak seen siitu biir yi dana nekk lu doy doy waar ndax mooy ñetti cër yi nga xam ne ñoo gën a efficace ci mën a mooy yàlla yonent bi ne ku yàlla musal ci sa ayu biir musal la ci sa ayu làmmeñ musal la ci sa ayu awra yàlla musal na la ci xeeti mboolem ay yi ku yàlla dimbale ba mën nga ba nga mën a contrôler sa ñett yi ba doo ca mooy yàlla su boobaa na nga sant yàlla bu baax te nga maanaam gërëm yàlla su ko defee nag yooyu yëpp buñ la seedee tànk yaag bët yaag nopp yaag loxo yaag biir baag lépp su ko defee nag waaja nag mer nag commencé di bëgg a xuloog cëram ya wa li juloo juluudihim li ma shahidtum naa waaw yéen seen sama cër yi lu tax ngeen may seede cër yi tamit ne ko antaqana laahu la fi ku la shay'in yàlla miy tuddaloo lépp moo ñu tuddaloo ku yàlla wax loo nag nga wax mënuñ ci dara kon yàlla dafa bëgg a wan ne seen cër yi ngeen di fonk bëgg di ko bànneexal su ngeen yeboo ngeen jàmb ko bala leen a jàmb ëllëg ci àllaaxira ndax boo toppee sa biir bi lim bëgg ci bànneex yëpp nga jox ko ko bu yowmal xiyaamee bu la jàmboo nga am problème naka noonu sa awra say bët sa làmmeñ say nopp say tànk say loxo lim lay laaj ci bànneex boo ko ko joxee soo ëllëgee mu dugal la ci kàmb taxaw di la xool di la reeta doo ca man dara kon jàmbu leen seen cër yi balañ leen a jàmbu ëllëg même boo yàggeeg moom fii sax gudd fan cër yi jàmbu nopp yi nga fonkoon ak bët yeeg loxo yi nopp dana dem ba déggatut loo wax dootu ko déggati bët dem yàgg fi ba gisatul tànk dem ba mënta yë yëngatu kooti nga tabax étage mënoo cee yéeg loxo dem ba mënta yëkkateeti dara su ko defee kon nag seen cër yi la lépp yàlla mu ngi leen koy signal dañ leen mos a jàmb kon nag yéen ba dañ leen a jàmb yéen jàmbu leen leen waaye ku ko fi deful nag bu ëllëgee nga am problème kon àllaaxira ngoog cër bu nekk dana seede lañ ca defoon ci ak mooy yàlla dana seede lañ ca defoon ci ak topp yàlla su paree nag loolu lépp ñu affiché ko noté ko malaaka ya la bi bind di kiraaman kaatibiina ñoom tamit ñu ne haada ma ladayya atiid lii de muy not bi cër yi seede moo tolloo liñ noté woon ñun tamit muy nekk benn su ko defee nag lañ ne ñu affiché ko ca lawxul mahfuz moo fa nekkoon muy haza kitaabuna yantiqu bil haqq su ko defee nag léegi nag euh, dara dootul mën a dara dootul mën a sennati kon nag loolu jar naa liggéeyal jar naa bàyyi xel bala nga caa yegg moom la yàlla wax noonu moo tax mu ne al yawma tey fii ci ti mu naxtimu danañu kaste ala afwaahihim ci seen gémmañ ya comme gémmañ moom li ci ëpp kàcc rek duñ ko wax loo wa tukallimunaa waxee ñu aydihim seen loxo ya arjuluhum seen tànk ya bi maa kaanoo ci loo xam ne nekkoon nañ yekk si bu na di ko faggu ci lu bon ak ci lu baax lépp loola wax ko yàlla nag ne mbiraakal yi ma def ngeen bañ koo xool ngir ak bon pourtant walaw na saaw bu ñu neexoon la tamas naa ñi far alaa ayu ayunun seen bët ya seen bët yi ma jox leen ko fayu leen facture ngeen war cee xool lu baax ngeen cee xool lu bon ba gisu leen miracle yu màgg yi ma def ci seen kanam su ma neexoon far ko te su boobaa fas tabaqoo ngi njëkkalante siraata ca yoon wa di fàddante comme ni ngeen koy defee ci àdduna su boobaa nag fa annee yubsiruna naka la ñuy gisee dara kenn kun dal sa kaw morom rek ba tey walaw na saaw bu ñu neexoon la ma sax naahum ñi masqu leen soppi leen i ay golo ak i ay mbaam xuux wala ay xeer ala makantim ci seen place ya foofa ngeen toog rek ma soppi leen fa comme ni ma ko defee ko nit yonentu yàlla Moussa yaat nit yonentu yàlla Daawuda ya te su boobaa fa mastataao duñ attan muddiyan ci continuer duñ mën a dem wala yarjiuna duñ mën a delluti foofa rek la ñuy taxaw seen bët yi neex lool suñ la doon fayeeku facture doo ko mën a fay dëgg-dëgg na nga fayee facture ba xool ci lu yàlla xoollu xool ci alxuraan xool ci say waajur xool ci lépp loo xam ne nii lu dagan la bañ a jël sa bët yi di ci arrosé def ko muy caméra boo xam ne lu la romb nga filmer ko te liggéey ngay filmer dara baaxut ci su ko defee nag mu ne kon su ma neexoon ma effacé ko ngeen ngeen ngeen i fàddante ci yoon yi comme ni ngeen ko defee fii ci àdduna su ma neexoon tamit seen maam ya am na ki ñu ma mas xooloon si niti daawuda de soppi leen golo ñii ma soppileen ay mbaam xuux su ma neexoon tey ma def leen ko te du ngeen ca man dara du ngeen mën a avancé ti du ngeen mën a tamit arrière ti fa ngeen nekk foofa ngeen nekk rek ngeen di nekk comme nag yàlla mën na ko te defut ñu ko ñu sant yàlla tey def luy tax du ñu ko def nag waaye buñ fi nexee def loo xam ne tamit ñi dañ dana tax mu def ñu ko su ñu ko defut tamit def nañu ko ndax am na koo xam ne bëtam ya su fekkee ne li li koy lay dundal bëtam ya mooy xollu xaraam kooka moom bu ñu ko defoon mbaam xuux tamit mbaam xuux la koo xamee tamit biiram ba lu xaraam rek la ciy lekk kooka même boo ko defoon mbaam xuux mbaam xuux la demeet yeneen cëree ca des yëpp noonu lañ mel kon bala la ko yàlla def yow nag nga moytandikuy def luy tax ngi def la ko su la soo defee luy tax ngi def la ko bu la ko defut tamit def nañ la ko maanaam da koo yëgul rek waaye fekk moom nga ñu ci bëri tey boo toppee sa biir na dem ba yóbbu la nga yore jikkooy mbaam xuux ñii yore jikkooy bawkat ñii yore jikkooy golo ñi yore jikkooy eh, jikkooy xar mooy jëmuñ fenn rek foo leen jëmale rek ñu jublu fa jëmuñ fenn loo leen woo mu ne xaaral ma sol sama dàll yi ñu dem am ñoo xam ne dañuy a jikkooy bëy ku dëkk ak ñoom ñu tànqal la sonal la wax rek ci loo xam ne amul benn njariñ su ko defee tamit kon yu ci bari tey delloo nañ seen bopp yi ci mala yàlla masqu na leen ko te fekk maanaam yëguñu ko su ko defee aaya ji tegu ci mu ngi wax gudd fan moom lañ bëgg waaye lu métti la yàlla nee na ku a guddal sa fan nga delluwaat di ndaw moom yow mi gudd fan boo fi yàggee rek la nga daan defal sa doom ji lépp mu mujj di la ko defal kon loola neexut moo tax mu ne wa man nu amiruhu képp koo xamee na nii guddal nañ ab diiram te mooy guddal nañu aw fanam nu nakkisu danañu jatt ko fil xalqi ca bindam ba afala yaqilu taa ngeen xelu balaa seen bind baa jattu yéen ngeen jattu dem topp ji yàlla kon ku gudd fan ni ko bëggee rek la nga daan defalaate dañ la koy mujj defal sa doom ji juddu na mënul lu dul jooy ak yàq boppam nga koy boot di ko sang di ko lexal di ko tëral di ko nax yow waajuram wii boo fi yàggee sa fan gudd ba ëpp danga dem sa doom ji ba muy judd indiwutoon xel da nga dem ba naax amatuloo xel kon dellu nga ci doom dolli nga ci xale sa yaa ngi nii tamit Euh, yaa ko doon sang amatuloo kartan sa doom doomay mujj di la sang booy jigéen sa doom ju sa jom ju jigéen di la sang ngay góor sa doom ju góor di la sang naka noonu tamit yaa ko doon tëral ci lal bi di yëkkatee ko tëral mënatoo ko fu mu ni moo lay tëral mi ngi nii ba mu juddoo yaa wutoon kuddu di ko ko jox di ko xol utal ko li muy naan tey tamit boo demee ba gudd fan yàgg fi rek mu mujj tamit ut kuddu di la toggal ay ruy di la ko xol ngay mujj naan kon ku gudd fan rek yàlla jatt sa dund fi nga li nga li nga njëlbeen woon nga mujj mujjee ko moo tax léeg-léeg am na ñaani gudd fan yoo xam ne jërul wax amin ndax léeg-léeg nit ki taxaw ñu ne la yàlla nga gudd fan bañ lay weer a weri loola dara jëru ko ak dund bu ca weer ak weri na ree yegg nga dee moo ca gën doomu aadama nag loo ko naxee buy ñaar yi rek nga am ko mooy gudd fan ak nguur guddul folleeku ndax moom lañ naxee woon suñu maam aadama suñu maam aadama aljaana jam nekkoon lépp waru ko te dara waru ko ñaar rek ci la ko iblis jaaree nax ko mooy tay ma jox la nguur gu dul folleekooti te da ngay dund dootoo a deeti hal adulluka ala sajaratil xuldi wa mulkin laa yablaa moo tax gars yi kenn bëggu cee folleeku kenn ku ne place ba nga nekk ba nga ko ñàkkee métti na ci yow trop kenn ku nekk tamit xeex nga ba place bi nga nekkoon bëggoo koo ñàkk kenn bëggul folleeku naka noonu tamit kenn bëggul dee da nga ko saraxe loo xam da nga ko ñaan xam da nga ñaan lu yàgg fi rek loolu moom danga ko dégg ku ne da ko dégg dégg moom lu la yàlla nga fi yàgg rek yàlla nga fi yàgg ba bu set nga dégg ko su ko defee nag waaju benn xakim dafa ne ku xas yàgg mën yàggati li nga doon ñaanal yàgg yàgg nga fi nga bëgg ñi lay ñaan ñaanalaat yàgg mën ta nekkati comme xas nga yàgg mënatoo yàggati kon nag waaye moom ku dee rek yow nga gën a bëgg a yàgg ne yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu ba kañ ku dee rek nga wax loola yal na ko yàlla yërëm te yéexañu yal na ko yàlla yërëm ba te yéexañu bakkan moo tax yonentu bi ne doomu aadama bañ na ñaar te ñaar yi muy bañ yëpp moo gën ci moom mooy new alal ak dee néew alal a gën ci moom ndax ku la gën a néew alal bu yowmal xiyaamee moom la xisaabam di gën a yomb bu sa alal bëree tey li nga am lépp ñu nar koo xisaab dërëm par dërëm dana métti di neex naa neex naa misaal gars yi nga xam ne dañoo wàcc ci avion bi voyagé woon ñëw amul lu dul sa sac rek la ñu yore da ngay ñëw rek génn enregistré génn waaye gars yi nga xam ne tey dañoo ñëw ànd ak bagage yu bëri yu ñu war a pees douane bi war koo seet wala nga ñëw wàccee ay conteneur ñu ne ñëwaguñ nga dem di seeti kañ lay ñëw ak di sa formalité yaag balaa génn coono bu baree bari la àllaaxira tamit noonu la mel ki amul bagage moom ñëw rek jàll waaye ki am bagage moom danañ ko audité seet fu fu bagage yi jàll ndax voilà bul naag li ci aju lépp mu a ñaareel bi doomu aadama bëgg na euh, sib na dee mais gën ci moom ñu ne ko lu tax mu ne ñaara fi ne su fekkee ku baax nga wala ku bon ñaar yëpp dee a gën ci yow su fekkee ku baax nga dee moo gën ci yow àdduna dafa métti nga dee dem texe nopp lu benn yoon su fekkee ku texeex di nga noo fi gën a yàggee sa bakkaar gën a bëri te noo fi gën a yàggee sa bàkkaar gën a bëri boo ëllëgee sa mbugal gën a sa mbugal gën a kon yow nga dee rek su ko defee boo ëllëgee sa mbugal mi naroon a métti gën a oyof ndax yàggoo fi bu baax moo te ne ndax comme yow sa dund gi yëpp ci mbon nga koy def nga dee dem benn yoon moo gën su ko defee kon nag moo tax yonentu bi ne ñaar ñii doom aadama bañ na ko mais ñaar yëpp moo gën ci moom kon loolu lépp jar na bàyyi xel moo tax mu ne walaw na saawu bu ñu neexoon la tamas naa ñi far ala ayunihim seen bët ya fa mas fas tabakoo ngi njëkkalante siraata yoon wa comme niñ ko defee fii ci àdduna su boobaa fa annee yubsiru na naka la ñuy gisee dara walaw na saawu bu ñu sooboon la masax naahum ñi masxu leen ala makkaantim ci seen place te su boobaa fa mastataaxoo attantit muddiyan ak woy wala na duñ mën a dëppati mooy duñ mën a dellu wa man nu amiru képp koo xam ne guddal nañu ab diiram mooy guddal aw fanam rek nu nakkisu danañu jett ko fil xalqi ca bindam ba afala yaqilu taa ngeen xelu jéem a jattu dellu ci yàlla bala lee bala ñoo jatt seen dund gi seen du seen seen seen dund gi ak seen bind bi aaya ji tegu ci muy wa maa allamnaahu shi'ra yàlla day dàq ñaar di saxal ñaar day dàq ne yonantu bi duhut waykat du shaair waaye mi ngi dàq tamit ne alquran duhut shi'ru ñaar yooyu la dàq saxal na ne kon alxuraan waaraate la ay hatte la ay ay jikko la ay teggihin la ay xuppe la ay dëhël la yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla la buy bégal ñi ko gëm ci aljana di di di xupp ñi ko weddi ci safara waaye nag xéeféer yi bon giñ bon mu indi leen alquran rek mu lottal leen walis ñu mën cee indi benn saar mënuñoo indi sax fukki saar fal yaatoo bi ashri suwari suwarin mislihi am na mënuñ ko faatoo bi ashri suwarin bi bi ashri su maanaam faatoo bi suratin mislihi mënuñu ko fal yaatoo bi hadisin mislihi mënuñu ko qul in ijtamaatil insu wal jinnu war a ñëw taxaw seen kanam loolu lépp nag ñu bëgg a yàq xelu nit ñi ne waay waay kii waykat rek la alxuraan jii mu indi tamit way la yàlla nag dàq loola ndax léeg-léeg dëgg day taxaw am ñoo xam ne lii dëgg la soo ko bàyyee rek fu ñëpp dugg ci dëgg ji nga bëgg nag muur xelu nit ñi bëgg muur xelu nit ñi ci wax yoo xam ne teguwut fenn looloo tax nag loolu lañ bëggoon def ci alquran ak yonantu bi yàlla ñëw nag muri liñ bëggoon a muur ne yonantu bi du waykat alxuraan tamit du way ndax euh, euh, way yu ci bëri dañ koy ŋàññi sariya day ŋàññi way yu bëri ndax way li ci gën a bëri dafa way day nekk lu ñuy peese mu am xaafiya boole ko koy def li koy conduire mooy ay def-defle ak ay jeeneer mu am ay awatif ak ay xayaal yooya moo koy conduire ba mën a def ay waya léegi-léeg dana ca tagg ku tagguwul léegi-léegi mu xas ca ku xasuwul nit ki defal la teraanga terewut ànd ak teraanga ji yëpp ku bon la nga tagg ko nit ki xañ la teraanga ànd ak lim la ko xañ lépp ku baax la nga xas ko loolu jikkoy waykat yi da li nga tagg ko tagguwul ngir lim la lim la defal nga xas ko xasuwul ngir lim la def ñaar yi yëpp nag day am ci ñoom te loolu boo ko bëggee àtte yonantu bi kon lim ñu andi duñ ko xóolooti yàlla nag na li ngeen bëgg a wax ci yonantu bi loolu amul duhul waykat alquran tamit du way ànd ak loolu lépp nag yonontu bu waxee way tamit taxul maanaam mu nekk waykat wax na way nag waaye taxul mu nekk waykat léegi léeg mu wax dara la wax ñëw tombeek way su boobaa loolu ci xam-xamu balaaga insijaam lañ koy tuddee mooy wax loo xam ne yow ba nga koy wax jubluwoo ci woon way waaye waaye ñëw di moom loolu am na ci alquran ayaat yu bëri yoo xam ne bii baxru yi ñëwee toll nañu ak ay baxru yi tax lu tolloog baxru kaamil yi tolloog baxru basit yi tollook baxru rajaz yi tolloog baxru tas yi tolloog baxru xafiif yi tolloog madit waaye nag waaye ñëw di moom waaye fekk na moom taxul mu nekk way yonentu beeg boppam tamit wax na waaye ba muy wax jubluwut ci woon way waaye bañ ko peesee way ñëw na di moom mos na toog keroog xarib xunay ni eh, Abu Sufyaan di ko wommatal bax la ba mu waroon yonent bi yëg ci kaw bax la ba ne ana nabiyu la kadib anam noo Abdul Muttalib loolu pourtant way la waaye ànd ak loolu nag ba mu koy wax moom jubluwut ci woon way waaye waye ñëw di moom benn bis taxawoon tamit ne maa anti illa usbuun illa usbuun damiyat wa fi sabilillahi ma laqiyat loolu ba mu ko waxee toll naag way waaye ba mu koy wax moom jubluwut ci woon way li lay xamal ne du way xamut way ñaari hadis benn bi sayyidatuna Aïcha moo ko indi dañ koo laaj ne ko ndax yonantu bi moom way waykat yi fi jaaroon amoon na yum ci rafetlu woon ba daan ko nettali Aïcha ne waaw waaw daana nettali bayti bale tarfatu def boo demee ci soxoraawu jaali da ko ca fekk mu ne sa tub di lakkal ayaamu maa kunta jaahila dégg nga wa yatiika bil axbaari man lam tuzawidi loolu la tarfatu wax mu ne maanaam ku fi yàgg rek bis yi ñu fi yàggee danañ la danañ la xamal loo xamutoon loo bëgg a xam ñaanal yàgg rek ku yàgg rek yàgg dana la xamal loo xamutoon waaye mun ne tamit bari na kuy tukki ba muy dem joxoo ko yóbbal mën naa am sax tàgguwut la woon taw bu ñëwee rek indi la sérité sérité ba nag mooy mooy mooy nettali rek nit ñi moom lu ñu nettali duñ ko jeexal lu ñu lekk la ñuy ñàkk waaye lu ñuy wax ba yowmal xiyam duñ ko ñàkk way wii nag neexoon yonantu bi mu bëri xam lu mu koy nettali waaye bu ko nettalee rek dafay wax ne way yaatiika man lam tuzawid bil axbaar te lool boo ko waxee way wi damu ndax bay wax baxru bi baxru tawil la ma faxoolun mafaailun la léegi nag moom bu ko waxee rek jiital bil axbaar bi bi jiital man lam tu sawit door andi bil axbaar te loolu boo ko waxee way wi damm ah, bu ko defee aboubacar reene ko shaayir bi waxul loolu de ba si yàgg rek aboubacar reene ko dëgg dëgg yàlla wax na dëgg wa maa allam naawu shi'ra yàlla nee na daal jàngalul la way xamalul la way kon gis nga ko ñàkk a xam tax bu daan nettali way sax way wa mën naa damm ah, benn bi abi saïd moo ko nettali yonantu bi sallallahu alayhi wa daana nettali benn wayu shaa'ir boo xam ne dafa daan wax ne waa dafa waxoon ne maanaam ca way wa kafa shaybu wal islaamu lil mar'i naahiya yonantu na bu koy nettali nga dégg ma ne kafa bil islaami wa shaybi naahiyan lil mar'i loolu boo ko waxee amul benn wasnu bu mu tolloog wayu day damu waaye nag na ko waajee waaye boo ko jëlee baxaru tawil la ba tey faxulun mafailun la waaye moom bu koy nettali rek way wa damu moo tax ñàkk mën a wayam yóbbu na ko benn bis xasaan ibnu dafa xasaan ah, dafa ñëw ak kaab ñoom ñaar ñëw ne ko dañoo bëgg nga àtte ñu ñun ñaar kan moo ci dàq way yonent bi ne way leen ma dégg kaab ne ko man maa ne inna rasula la sayfun yustadaau bihi muhannadun min suyufillaahi masloolu mu ne ko waaw yow yow yow xasaan waxal ma dégg mu ne fa inna abi wa walidihi wa irdi li irdi muhammadin minkum waqaa u yonent bi ne yaa ah, xasaan moo dàqa way kaxab timit nag ree ne ko waaw yàlla wax na dëgg wa ma alam naahu siara maanaam daal yàlla xamalu la way wa kon dafa ko bëgg wan ko soo xamoon way da nga xam ne maa ko dàqa way <laughs> kon nga yëg ne daal euh, dana wax lu tolloog way waaye fekk na mut ca way kon loolu insijaam la ko ulamaaw balaaxa di tudde kon loolu la yàlla di dàq liñ koy tuumaal ne waykat la alquran way la yàlla ne du dëgg moo tax mu ne wa ma allam naahu xamaluñ ko asiara way wa ba yanbaghi yellut la ñeel ko ci muy way in huwa déet moom alquran illa zikr lu dul muy ak waare wa quraanun muy téere bay kojug asamaan mu bii biinun bay aji biral lépp lu dagan ak lu haraam li wàccee na ko ci yonentu bi nag li yunzira ngir na waar man kaana ku nekk xayyan di aji dund ci xeq ci xol waaye nag yëg naa ne ñi dund ci xol bari hut moo tax wa yaxiqa dana xey alqawlu baata mbugal alal kaafirina ci xéeféer yi nga xam ne dañoo dee ci xol seen xol yaa dee euh, su ko defee moo tax kon ñoom tamit safara la ñuy dem téere bi li muy foor foor ka ca yàlla ka ca yontu mën a waar mooy kay xol bay dund rek waaye ku xol ba dee lu yonantu bi mën a mën a waaree mënta waar kooka su ko defee nag ñu ci bëri nag yëg naa ne seen xol yi dee nañ su ko defee la ma waxoon ne la am la anna jahannama minal jinnati wan naasi ajma'iina ñoom naan dugg nañ ca ñooña aaya ji tegu ci mooy awalam yaraw ana xalaqanaa lahum yàlla dafa ñuy ñaax ñaax nag dañuy wax ne ñett ba ñeent ñoo ko xeyoo waajur wi sañ naa ñaax doomam taxaw ne ko booy nekk kaadar ngay tekki di am nangam man maa tax te su boobaa tamit yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar ab sëriñ sañ naa ñaax taalibeem bi xam-xam boo mën a am ak boo mën a am gannaaw yàlla maa tax te du ca am benn bàkkaar ñetteel bi mooy yàlla mën naa ñaax ay mbindeefam waaye ku dul ñett ñi bu la ñaaxee ñaax ko ak lu mën a jaar ci moom rek bu la joxar bee rek lu xër bi ko yow tamit waaye buy ñett ñi nag moom sañ nañu ko yàlla nag mi ngi ñuy ñaax ci mala yu mala yi mu jox ñu xéewal ñu xéewal la goo xam ne sax dañ koo miin ba jàppatuñ ne xéewal la muy xar yéeg bëy yéeg nag yeeg gëlëm yi ñu ëpp ñu jëmm fuuf te ñun ñu ëpp leen xel ëpp gi ñu leen ëpp xel nga gis xale bu am fukki at jëfandikoo xelam ba jël gëléem ni mu rëyee mu laab ko yeew ko yéeg ca kawam ne ñoo koos di ko daq di tukki loola kéemtaan gu rëy la ni mu la ëppee jëmm bu la ko ëppee woon xel moo lay war waa yow doo ko war naka noonu sa fas wa nga nax ko naxa nax ba takk ko sareet jël ñun ñu bëri dugg ca ngay tukki loola xéewal gu rëy la naka noonu yàlla tàggatal la avion bi nga bës bouton rek li ci nekk ci ay ton ci marchandise ak doom aadama yi mu naaw ak ñoom loolu xéewal gu rëy la oto beeg yooyu ñëpp dugg gaa yi dugg rek nga dugal caabi ji cuq mu takk su ko defee nga nga roof premier départ waaye dañ koo miin a miin a miin ba jàpp nañ dugut xéewal moo tax yàlla bëgg xéewal yooyu ku ca duggati oto la sareet la avion la santal yàlla ci alhamdulilah li saxaral naa hada boo ko defu rek def musiba ndax xéewal gu rëy la gu la yàlla defal te moom lay wax si nii moo tax mu ne awalam yaraw xanaa ñoom dañoo xalamut ne annaa naka ñun yàlla xalaq naa bind nañ lahum ñeexal leen mi maa ca la nga xam ne amilat jëf na ko ay di naa suñ loxo anaaman ci ay juri kër fahum ñoom maalikoona way moom lañ laxaa ñeel juri kër ya wazalal naaha tàggatal nañ leen juri kër ya lahum ñeexal leen fa minha am na ca juri kër ya rakubuhum yoo xam ne seeni war waay la yéen a ngi cay war lu mel ni gëlëm yéeg nag yeeg fas yeeg mbaam yeeg bax la yi wa minha am na ca juri këree yoo xam ne yaakulu na dañ koy lekk muy xar ak bëy ganaar yeeg ya ca aju wala hum aji nekk la ñeexal leen fi ca juri kër ya manaafiu ay njariñ ñoom xar yeeg yu mel noonu yaa ngay jëriñoo lin ba te mooy maanaam kawar googu wabar baak lu mel ni maanaam suuf ba yaa ngi koy dagg di ko def lin mu ngi soppeeku ay yëre nga di ko sol wa masaaribu ak ak ay naan léegi léeg nga ronu nag nag wa yeew doom ja commencé di ratt jël la nga ca ratt dem ca kër ga xewlu ca la ca des nga wayal ko loolu lépp ay xéewalu la yàlla defal yàlla nag na afalaa yaskuruun taa ngi sant yàlla mi ñu defal lii dëgg-dëgg alhamdulillahi rabbil alamin lañu lañ wax fu ñu war a toll kon xam ngeen ne lii tey lu mel ni fas bu la ko yàlla tàggatuloo noo koy waree ni mu amee doole lu mel ni nag ak yàlla tàggatal la ko ba nga mën a ronu commencé nag téye sa téye sa këll bi yow sàmm bi may déglu commencé di ratt ba sa xol sedd nga yóbbu kër ga lii nga ooro lii nga wayal lii nga jaay loolu xéewal gu rëy la ka nekk ca di jaay gëléem ca Murtani wala ca Jolof ni gëléem ponkale xale bu ndaw nax ko naxa nax ba takk ñaari tànk ya ak gémmañ ga ni ko yeewoo ba mujj nag tëral gëléem gi lum ko bëgg def def ko léegi-léegi mu nax ko naxa nax ba yëg ca kawam mu dagg mu dagg ak moom lu ëpp téeméeri kilomètre mu jël ay bagaasam teg ca loola xéewal gu rëy la booba nag waruwaay yi ñoo xewoon màkka moo tax mu tudd ko waaye yow mi yore waruwaay yi yaa ngi ca biir yow mi yore oto ni mu ponkale yàlla tàggatal la ko nga mën caa dugg sa sa njaboot gi dugg nga nga tëj buntu ya taal yow mi nekk ci avion ba yow mi yow mi yore sax welo lépp muy waruwaay boo mën a xéewloo rek mu lay wàññil yoon di la oyofal sëf maanaam dugg na ci lii kon te loolu kenn dong moo ñu ko defal mu yàlla moo tax mi ñu ciy ñaax su boobaa tamit kon nañ gën a góorgóorlu di ko sant ndax xéewal gu nekk bu dañu dafa taxaw taxawaayu rabu àll rabu àll nag li ko mën a taxa yee eh, nekk ci kër mooy yeew buum dañ koy yeew boo ko yeewut mu daw kon tamit xéewal gu la yàlla mën a may boo bëggee mu sax bul sonn santal sant moo taxaw taxawaayu buum gi yeew xéewal waaye bu xéewal amee santoo rek xéewal ga dem moo tax yàlla wax na ko ci alquran ne la in shakartum la azidannakum alquran dafa am balaaxa dafa ne waat naa ne bu ngeen ma santee ma dolli leen waaye noppi ca sax ga loo gis muy dollee ko dafa faa sax lu saxut mën naa dollee ko kon nag ku bëgg sa xéewal gi la yàlla defal sax ci say loxo del sant ku bëgg xéewal gi la yàlla defal muy gën di dollee ko heure bu nekk del sant waaye lu xéewal rëy rëy boo santatul rek mu wan la gannaaw moo tax bëri na kuñ doon ñee tey te fekk ñu ngi koy yërëm boo demee boo toppee tànk ya ñàkk sant yàlla rek fu mu toll di jàmbatu dafa bëri nit ñu bëri jàpp nañ la ñu war a mën a sant yàlla mooy xaalis rek xaalis a gën a néew ci li ñuy sante li ëpp doole ci sant bala yàlla defee ngay ab jullit xéewal ak jullit kenn mënu koo sant yàlla xéewal ak bëgg sayduna muhammad kenn mënu koo sant yàlla xéewal ak bokk ci xeetu sayduna muhammad kenn mënu koo sant yàlla demeet nag wér door a ñëw nga am jàmm door a ñëw alal nag door a ñëw alal sax moo mujj ndax alal li muy neex neex bala nga koo mën a alaloo na fekk nga wér bari na ko xam ne milliard te mënta jeexal kaasu ndox lu ko alalam jay jariñ bari na tey tamit koo xam ne am nay milliard bu mënee jeexal kaasu ndox tamit xëñ nañ ko jàmm tëj ko ci benn place boo xam ne bëggul faa nekk su ko defee kon nañuy sant yàlla ci jàmm di sant yàlla ci wér di sant yàlla ci gëm yàlla di sant yàlla ci xir gim ñu xir ci def lu baax mu tuuti mu bëri yëpp bu ko xeeb santee ko yàlla door a jël xaalis nag muy mujj ak sant waaye moom nit ñi bala ñoo mën a sant rek fekk na seen poos fees na ci xaalis loolu kon gàtt xel rek la aaya jii tegu ci bi ñu yàlla defalee lii lépp li ëpp ci nit ñi bàyyi nañ fi yàlla dem topp koo xam ne mënalul leen dara ñu topp ay xiram ñu topp ay malaaka ñu topp ay jinne ñu topp lu kenn xamut di leen jaamu jàpp ne ñooña bu ëllëgee dañuy nekk soldaar yu leen di défendre ca safara yàlla ne juum nañ safaan bala boo lëgee loola ñu doon jaamu dama koy booleeg ña leen doon jaamu lañ doon jaamu nekk matt ma ñoom ñu dem safara antum wa ma taabuduuna min laay duni laahi xasabu bu jaal na ma xasabu ja antum laha waaridun su ko defee kon yooyu yëpp ñu jël ci bàyyi moo tax mu ne wattaxasoo jàpp nañ min duni laahi walis yàlla alihatan ay xiram laallahum mbastale ñoom yung saruna dimbaleef leen mooy tere leen mbugalam yàlla ma amut laa yastatiuna attañtit ñoom xiram ya xéegalal na leen xéeguwaay lu am xel te fekk amuñu ko nasruhum seen ak dimbal mënuñu leen a dimbale wahum ñoom ci liñ wax ñoom dañu foog ne jundun ay soldaar lañ muxdaruuna yu ñuy teewal lahum ñeexal leen ca safara di leen défendre foofa loola amut falaa yuxsin ka bu mu la jàqaloo xawluhum seen wax ja ne naan doxoo kuñ yónni bu mu la jàqaloo innaa naka ñun yàlla nax la mu xam nañ maa yu na lu ñuy nëbb te mooy bañ la wa maa yoolinu ak lu ñuy feeñal te mooy jaamu xiram waaye bu mu la naqari ñaar rek moo nekk ci ñoom liñ nëbbu ci seen xol yi mooy bañ la li ñuy feeñal mooy bokkaale yàlla waaye bàyyi leen bañ dajeeg man su ko defee kon képp ku fiy jaamu lu dul yàlla kooku ku mën a doon ak loola lu mën a doon bis boo dee ba ba ba dajeeg sa borom da nga réccu loo doon juddoo su ko defee yàlla nee na képp lépp loo doon jaamu bu ëllëgee yaag moom moom day nekk di mattam safara yàgg moom ngeen bokk nekk safara kon nag loolu nañ ci bàyyi xel dem jaamu ji yàlla wéetal ko te xam ne moom bokkaale wut ña kenn ci bind ci wër wërsëgal ci ray ci dekkil ci fay koo xam ne dafa wét ci yow ci lii li la war ci yow mooy nga koy wéetal waaye boo ko bokkaale ci leen rek maanaam juum nga aaye ji tegu ci muy awalam yaral insaanu ñii dañ ne mi ngi wàcc ci Aasi nu Waayil ñii ne mi ngi wàcc ci Ubay ibnu Xalaf waaye ah kay mën naa wàcc ci ñoom ñaar ñëpp ba wàccaale ci képp koo xam ne am nga seen melokaan ci seeni jikko ya lu ko waraloon aasi wala ubay dañoo mës a toog ak abi ak ñu bari ci benn gaara place yore ay yax ñu ne waaw yonent bi dañoo dégg muy wax ne bu yowmal qiyaamee yàlla dana dekkil yax yi ba mu nekkaat nit loolu nu mën a amee kenn ku ci nekk wax ca ñii naan su fekkee ne nit ki ay gar dañ koo lekk lu mel ni gaynde wala bukki ñoo ko lekk boo liggéey nu ko yàllay mën a feeñalaate yàppam woowa ak yaxam yooyu nga xam ne bukki lekkoon nañ ko bu yàgg su fekkee dafa suux ci biir géej soo lëggee naka lay mën a dekkee kenn ku nekk wax a wax ay wax ke ca gën a texe xadi di uba yi wala ansi yi yax ba ne man danaa dem ba ci yonentu ma xulóog moom mu ñëw fekk yonentu toog mu ne ko yow yaa wax ne sa borom mën naa dekkil yax yu fënax yii yonentu bi ne ko waaw waaw yàlla dana dekkil yax yu fënax yi ba pare nga dee mu dekki la dugal la safara kooku boo amoon xel dana jàq ko yonentu bi ne safara nga jëm billaahi boo amee xel jàq loolu la ko yonentu bi wax ko defee nag yàlla dafa bëgg yonentu bi lu yonentu bi wax rek yàlla dëggal ko wax jooja nag yonentu bi tontu waaja yàlla wàccee aay ji dëggal loola waaye aay ji dugalaale nag képp kuy weddi dekki na yàlla mënta dekkil mbindeef yi bu ëllëgee yàlla dana la dekkil ba pare dugal la safara bi umumi lafzi laa bi xusuusi sabab su ko defee kon dafa dugalaat loolu lépp lam defoon nag la yàlla di wax nii xam naa dafa fàtte fi mu bàyyeekoo moo tax muy wax loola moom lay wax si nii moo tax mu ne awalam yara xanaa dafa xamul al insaanu aasi ibnu wail ak ku mel ni moom ne annaa naka ñun yàlla xalax naahu bind nañ ko minut fatin ki toqantal ma niyu ñeen fukki fan mu door a nekk lumbu ñeen fukki fan mu door a nekk suux ñeen fukki fan ma door caawal rooxu mu dund la yaayam di dund diirab juróom-ñeenti weer mbaa lu ko xées mbaa lu ko ëpp mu door a génn mënul dara lu dul yàq boppam mu continuer di dem a dem ba nekkam ponkal commencé nag fa mu nekkee ponkal nag fa isa ci mbetteel huwa moom xasiimun di aji tat ji xulooxaale mu biinun di aji biral ak xulooxam ba tax na wa dara ba sadd na la naa ñaan nga ñun yàlla masalan léeb bay téye ab yax naan ndax mën naa dekki lii kooka de wa nasiya fàtte na xalqahu bind ma fi ma jaar ak moom xaala mu naan man yox yi ana kan mooy dundal kan mooy dekkil alanisaama yax yi fekk waxiya moom rami mun aji fënax la qul wax ko yow yonentu bi ne ko yox yihaa dana dekkil ko ladi buur ba nga xam ne anshaa moo ko sosoon awala martin ci njëlbeen yoon ki ko njëkkoon a bind te xoolut ko fen moom moomu bu ko yàqee dana ko bindaat wa huwa moom alimun xamaa kon la bi kulli xalqin ci bépp mbindéef al kon nag lii tontu bu leer la yow toqantal mën ni nga woon koo taq mu dem raxasu ji ñeen fukki fan nga door a nekk lumbu ñeen fukki fan nga door a nekk suux ñeen fukki fan yàlla door a hebal malaaka mu ñëw wal ci yow mu digal ko ñeent ku ñaawam ku rafet ku gudd wërsëgam ku ko gàttale kuy war a dem safaraak kuy war a kuy war a kuy war a dem aljana su ko defee loolu lépp ñi bind ko ci ñi enregistré ko ca foofa te fekk yow ñëwaguloo nga def fa juróom benn weer mooy li gën a tuuti ci ëmb ndax al alquran wax na ko wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuuna shahran buy lu gën a not ci ëmb juróom-ñeenti weer buy li gën a bëri ñeenti at ndax loolu la imaamu Malik ñetti at jëm ba ñeent la ko yaayam ëmb kooka dem nag juddu jaar ci yoon woo xam ne moom ma fa jaar sax xam na ne xaju fa ba yàlla nga koy wax ne summa sabila yasarahu su ko defee mënul dara ñiy sangaka fompaka mu yàq boppam di dem a dem ba commencé mën a raam mën a toog commencé mën a dox dema dem bay doxal boppam ñi koy leyal mu dema dem ba mën a lekkal boppam dem ba am fanweeri at jëm fanweeri at ak juróom nekk ponkal jàpp ne lu nekk ci kanamam bu ko songee daane ko mu fàtte fi ko yàlla jaarale bay tax muy laaj ne ndax mën naa koo dekkil kii fàtte na boppam kii kon fàtte na boppam moo tax li gën a yées ci fàtte yépp ak ñàkk xam-xam yépp bi ci gën a yées mooy réere sa bopp ñàkk xam-xam yépp réere sa bopp moo ci gën a bon mooy réer yépp daal bi ci gën a bon mooy réere sa bopp ñàkk xam-xam yëpp bi ci gën a bon mooy ñàkk xam sa bopp moo tax benn waaju rëylu bi muy tiitaru takk karawaat tiitaru nag di wax waa ji ne ko xanaa xamoo ma di tiitaru lu ne wax ko waa ne ko dama laa xam fi nga jàppee ne foofu laa la xamee fi ma la xamee gën naa sori foofa yow yaay ki nekkoon toqantal mu ndiyu bàyyee ko ci nekk aw lumbu nekk suux eh, su ko defee jaar fi nga jaar te yaay ki nga xam ne li lay xaar tamit mooy suuf yow yaay déet doomu aadama ji nga xam ne ñaari ndoxu raxasit moo la tii moo la moo la séq ndoxu raxasin mu njëkk mi nga xam ne kum laal nga raxasu ak buñ la suulee ba pare ñëpp dem raxasu ji yow man dama laa xam de waaja bàyyi xuloo ba fekk xuloo doy na sëkk ku la wax loolu kon jeex na yàlla nag ne kon ki sos lam sosoon bu ko yàqee bu ne mën naa koo defaraat nga war koo mën a gëm su ko defee kon lii la yàlla wax ak wet di dekki jaaree ko ci asim nu waayil mu dugalaale képp kuy weddi dekki waaye mu indi at beneen preuve bu gën a leer booba aaya ji tegu ci mi ngi wane ne ki man lii ma bëgg wax bu ne mën naa dekkil nit nga war koo gëm loolu mooy lan ki mën a fekk ñaari safaan mu génnee ca benn safaan ki xam nga dañuy wax ne diddaani laa yastamiaani euh, ñaari safaane mooy lan ndox ak safara xam nga fu safara amee rek bu ndox ñëwee mu fay safara tamit lu mu takk tàkk boo ko dugalee ci ndox mu fay yàlla nag mu jël benn matière boo xam ne boole na ci safara boole ci ndox te maanaam ndox ma fayut safara wa safara wa tamit fayut ca ndox ma ki man loola man na lépp loola loola mooy lan mooy garab garab yi ngay gis yëpp safaraan ci biir garab waaye terewut tamit safara yi ba mu nekkee ci garab ba ba mu nekkee ci biir garab ndoxam ci biir garab mooy gàncax gu tooy xepp ku ne xam na ndox la ndoxa nga ca waaye safara nga ca la ca safara nekk tax bu demee ba wow rek jigéen ña taxan kook taxan kadee yóbbu ko toggee ko safaraa ca nekk safara soo sa nekkoon ca moom la ñuy taal waaye xoolal ba muy tooy safara sa mang ca boole kook tamit euh, ndox maa nga ca te ndox mi mënta fay safara yu safa safara yu mënta fay ci ndox mi boo ko bëggee gën a misaal bu gën a jege jëlal pofton day tooy xepp nga boole ko ci say loxo rek mu takk te ànd ak la muy takk noona ta safara wa nekk ca mosta fay ndox mi ndox mi mosu koo fay ñu ne nag dañoo wax poftan rek waaye garab yëpp a am safara benn garab rek moo amul safara mooy raisin waaye garab goo waxati rek safaraan ci biiram wuy tàkk ca moom boole ko ndox ma nekk ca moom waaw ki mën a boole safara ak ndox ci benn jamono ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk di def liggéeyam te kenn yàqalul sa morom ki man loola dëgg dëgg bu ne mën naa laa dekkil nga gëm ko waaye boo bëggee jël bi gën a jege mooy niir wi rek niir wi taw bi ak dënn yi dënn yi di dënn yëpp safara rek la niir yi ngay gis tamit ndox rek la waaye pourtant dënn yi di safara manta fay manta fay ndoxu niir wi niir wi tamit du fayee ci dënnu ci dënni safara yi kon ki mën a boole dënn ak dënn ndox te benn du fay sa morom dëgg-dëgg kooku bu ne mën naa laa dekkil nga war koo mën a gëm yàlla mën a lépp moo tax mu ne alladi buur ba nga xam ne jaala def na bu la neexee nga ne jaala bind na làkkum ñaal leen mina sajari ci garab gi al axdari gay aji na tëx mooy garab gu tooy xepp mu bind ca naaran safara fa isaa ci mbetteel antum yéen tuuxiduuna way taxal ngeen minu ca garab googa fekk jël safara wa di ko taxal ca garab ga safara wa nekk fa ndox ma nekk fa te dara dara fayut sa morom kooka waaye mën na laa dekkil boo ko weddee wala awa lay sa la ndax déet buur ba nga xam ne xalaqa bind na samaawaati juróom-ñaari asamaan wal ard ak juróom-ñaari suuf niñ ponkale ndax kooka bi qaadirin duul aji hattan ala an xam mu bind mislahum kenn doom aadama yi ak niñ tuutee ku mën a bind asamaan ak suuf ni ñu toll bu ne mën naa bind doom aadama bu dee ma jàllal bi ko tamit dekkil ko bind ko jarta weddi ndax lim dafa gën a rëy maanaam lim lim lim ñu def bañ teg ci suñ bët moo gën lim ñu dëxal ne dana ko def kon loolu war nañ koo mën a gëm moo tax mu ne bi qaadirin di aji hattan alaan yaxluqa mu bind mislahum kem doomu aadama yi balaa kay man na ko de ndax wa huwa moom duhut xaalix waaye xallaax la bindaa kon la duhut alim mais lim la xamaa kon la koo xam ne am amruhu bu namee dara am amruhu bu namee isa ara innama amruhu daal naka mbiram isa bu namee shay an lëf an yaqula day wax lawoo ñeel mbir ma rek ne kun nekkal ca saasa fa yakkoonu mu nekk waaye sax kaaf ak ñun amu fa waaye ñun xamuñ lu gën a gaaw kun waaye lu mu namm rek bay nammeel ga di am rek loola am na kon nag fa subhaana la si tudd na ma buur sol seel buur ba nga xam ne bi yeddihi ak i nekk la ci kartanam malakooti kulli shay'in nguur ak lépp lëf wa turjauna def na delloo leen yéen ñëpp ilayhi jëm ca buur booba moo jara a jaamu kon nag yàlla andil na ay preuve bi waa ji ñett andil na ko preuve ku mën a fekk ndox ak safara mu boole leen dara yàqalul sa morom boo dee mën na laa dekkil ki mën a bind asamaan ak suuf ni mu ponkale bu ne la mën naa laa dekkil jarul weddi koo xamee ne tamit nekkul xaalis mais xallaax la créateur bu mag la du wut alim mais alim la koo xam ne lu coobareem ja namm rek loola xam du fa nekk yi dage léegi yii yëpp coobare lu muy namm rek loola am su boobaa kon ki man lii dëgg-dëgg te bépp nguur muy pouvoir bu mën a nekk ci loxoom la ne lu mu la wax nga war ko mën a gëm kon loolu jar naa bàyyi xel moo tax mu ne awal laysa lazi ndax déet buur ba nga xam ne ka bind na samaawaat juróom-ñaari asamaan wala ardaak juróom-ñaari suuf bi qaadirin muy aji attan ala an yaxluqa ci mu bind misluhum kem doomu aadama yi bala a man na ko de ndax wa huwa moom xallaaqu bindaa kon la alimu xamaa kon la ca siixatu mu baalaxa ma koo xam ne am amruhu daal naka mbiram ida araada bu nammee shay an an yaqula mooy mu wax lahoo ñeel mbir ma ne ku nekk rek ca saasa fa yakoonu mu nekk moo tax mu andi faawu tartib wa faali tartibi bitti saali fa subhaan la ci tudd na ma sell ak buur ba nga xam ne bi yeddihi ak yi nekk la ci kartanam mala kootu kulli shay'in nguur ak lépp lëf wa turjaxoona def na delloo leen yéen ñëpp ilayhi jëm ca buur booba gannaaw bu ngeen deexee ngeen dekki jële seen téere ya jëm ca péncam buur ba mu xatte leen kenn par kenn te li mbindee fii bëri yëpp par kenn rek la yàlla di recevoir ba wax na ne wa in minkum wala wax na ne wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati fardan ki man lii kookaa jara jaamu kon suratu yaasin jeex na e, lépp luñ ci yàq juum ko ci yàlla nañu ko yàlla jéggal lépp luñ ci xam yàlla nañu ko yàlla may ñi man koo jëfee e, lépp saaru pas-pas la yàlla na yàlla may ñu ñi mën a fas li ci nekk yépp gëm ko gëm gu rafet su ko defee di ko pratiquer ni ko yàlla bëggee yàlla wàccee barkeb saar wi ci yéen Euh, ñi topp tafsir bi fu ñu mun di nekk ñi ci prison yi ñenn ñi nekk nañ ca ya ñenn ña ña nga ca tool ya ñenn ña ña nga ca bureau ya ñenn nga nekk bitim réew ci mbooleem juróomi continent yi ci àdduna bi topp tafsir bi ñoom ñëpp tamit yàlla na yàlla wàccee barkeeb yaasin ci ñoom wàccee ko ci ñun wàccee ko ci kër gi jiital ci borom kër gi. su ko defee nag saar wi li mu ëmb ci njariñ bëri na njariñ yi kenn ku ne ci ñun fexe góorgóorlu rek fexe ba mokkal yaasin Euh, boo ci góor góorloo rek doonte bët bu set benn bind la wala ñaari bind balaa yàgg rek yàlla mën na laa may nga mokkal ko doomu adama lu mu sonn rek yàlla dimbale ko ca te yow mi ko mokkalut di ca jéem sax yàlla ngi lay yonantu bi mi ngi lay dëxal ñaari yool mu ne kii man alquran di ko jàng mu man mu gaaw dañ koy bindal benn yool waaye benn yool boobu nag kenn xamul ni mu toll ki ko xam ne day jéem di ijjëkk a boole lam man bu mu ko xeeb mu ne su boobaa ñaari yool lañ koy bindal mooy yoolu tudd xaraf wi ak yoolu góorlu gi muy def ba fexe tudd xaraf wi su boobaa kon nag ci loo ko manee rek nga jàng ko fexe ba mokkal ko boo ko defee tamit yàlla dimbal la ci liñ ci wax lépp ak liñ ci waxut yépp wàcc ci sa kaw su ko defee tamit nag ni ñu góor góorloo ba mën a dugal carte crédit yi mën a xam sa bonus bi ak liñ la envoyé ci ay message te ku la mujj judd moo la ci gën a xereñe ak ni nga amee xam-xam ci ordinateur yi ni nga ci mën a duggee genn wàllaati genn wàllam boo ko defee rek da nga mën a mokkal suratu yaasin kon yal na yàlla defal leen tawfiix defal leen taysiir defal leen barke ñi siyaare ñi ci plateau bi sëñ Ousmane